Chérif Ndiaye nag passeur décisif la voilà joxe na benn bal ci jogante googu ñu dal di koy dugal moom attaquant international sénégalais bile waaye dañoo mujjee daanu comme ni leen ko waxee ñaari bal ci benn. Feyenoord Rotterdam moom nag ñii di waa Leverkusen moo ko fekk dëkkam dal di koy dóor dóor yu mettee métti sax voilà ñeent bal ci dara Leverkusen bi nga xam ne ni ki daaw moo doon lëmbee Europa League ba kenn mënalu ko woon lenn ren mu ngi ci Champions League voilà tey jii wane na dooleem 4 à 0 moom la dal di dóor équipe boobu mu doon janool voilà muy ñii di waa Feyenoord bit yi nga xam ne xew na ci jogante googu nag bokk na ci kii de Florian Wirtz bi nga xam ne moo ca amal ab doublé Florian Wirtz ñaari bal la dal di dugal ci jogante googu la beneen bi ca des ki nga xam ne mooy Grimaldo moo ko dal di dugal ba ca des nekk benn bi contre son camp voilà kon kii di Florian Wirtz gannaaw doublé boobu nga xam ne amal na ko moom la ñu tànn moo nekk homme du match ci jogante googu beneen match bi doxoon diggante Atalanta ak Arsenal moom dañoo match nil ndam demul ndam dikkul zéro bi partout voilà mu nekk loo xam ne nag dafay wane ne ñii di waa Arsenal moom mel na ni Italie moom neexlewuñ fa wala géej nañu fa neexle ñeent match yi nga xam ne mujjee nañu ko foofule ca Italie ñëw waa Arsenal amuñu ci ndam wala ñent match ñu mujjé fekk ji dégg maam fofu la ci Italie ba légui ñu wa Arsenal mënuñ ci am ndam waaye tay ji ñu génn ci match bobu itam mën nañ ci jangat seen gardien bi nga xamné mom lañ wax David Raya mën na ni mo dal di sauver ñi Arsenal ndax dafa japp ben penalty yamu ca mo dal di japp lool nga xamné mom lañu tuddé rebound bi wala manam bi nga xamé né door nañu penalty bi mo dal di koy japp mom kok nga xamné moy David Raya ki nga xamné mo lañu wax Retigi voilà dal di ñëw ngir dégg maam bëgg dugalaat bal bi waaye mu dal di koy jàpp mu ngi kooku De kon loolu bokk na ci li nga xam ne dimbale na Arsenal kañ nañu génn ci jawante googu ak benn poñ voilà loolu mooy li nga xam ne mooy match bi nga xam ne am nañu ko ñu jàngat ba tey ci match boobu la ne ki nga xam ne mooy Raheem Sterling bi nga xam ne ancien joueur Chelsea Football Club la nee nañu day dugg na ci histoire Ligue des Champions ndax moom kat mooy benn joueur boo xam ne joué na ci Ligue des ak ñeenti club bu anglais yu wuute ñeenti club bu anglais yu wuute ànd na ñoom dem ci Ligue des moom kooku di Raheem Sterling gannaaw bi mu joué tey ji ak ñii di waa Arsenal joué na ko ak ñii di waa Liverpool def ko ak Manchester City def ko ak Chelsea Football Club tey ji moo ci mujj ak ñii di waa Arsenal. Atlético de Madrid moom dafa dal di dóor ñii di waa Red Bull Leipzig ñaari bal ci benn match boo xamante ni kii di Griezmann ku ci ràññeeku la wala moom kooku di Antoine Griezmann bokk na ci ñi nga xam ne dugal nañu ci match boobule. gannaaw bi nga xam ne RB Leipzig sax ñoom ñoo njëkk a dugal Benjamin Sesko moo njëkk a dugal ci match boobu Griezmann ñoo égalisé waaye ki nga xam ne moom la ñu wax José Maria Jiménez dal di ñëw dugal bit bi nga xam ne moo leen dal di jox ndam ci quatre-vingt-dixième minute kon match bi jeexoon na daanaka ñi di waa Atlético dal di ciy génn ak victoire stade brestois bu Abdallah tey ji dafa dal di am da moom it ñaari bal ci benn Sturm Graz la doon juyal tey Sturm Graz waaye ki nga xam ne moom lay wax Abdallah Sima ràññee ko lool ci match boobule voilà dafa dal di dugal ab bit boobu nag nekk bit bu ama amaam solo léegi nag ñu gis ne moom la ñu dégg maam tànn dal di koy def homme du match maanaam nekkul ne rek dafa dugal ab bit waaye match bu rëy bi nga xam dal na koy def gannaaw bit bu rëy boobu nga xam dal dina koy dugal moom kooku di Abdallah Sima moo nekk homme du kon mu mel ni dugg na ci taarixu Ligue des Champions Brest bi nga xam ne mën nañu jàppale dafa rëcc dem Ligue des Champions seen premier match suñu dal ci am victoire waaye nag ki nga xam ne mooy Abdallah Sima nekk ci li nga xam ne mooy homme de match loolu beneen histoire la boo xam ne tey ji jàngat nañu ko bu leen fàtte Abdallah Sima yéen a ngi fàttale ko at yee ñu weesu ak Slavia Prague ga nekkoon la mu doon def ci li nga xam ne mooy Europa League Europa League la woon voilà dal ci waaye itam nekk lii di om di match beneen match bi doxoon diggante AS Monaco ak ñi waa Barcelone boobu nag Barça dañ koo dal di dóor ñaari bal ci benn AS ko moo dóor Barça ñaari bal ci benn match boo xam ne day gisson nañu né Barça amona taxway bu ama am solo ndax kat ñom xam ngeen karton Rus, carton rouge carton rouge bi nga xamné kat am nañu ko sax mën nañu japp né photo ki nga xamné mo Ter Stegen mo ngi ci wala ki ñi wax Eric Garcia lañu jox carton rouge way carton rouge bobu kat mën nañu japp né ki nga xamné mo Ter Stegen moko dal di taylé ganna bi mu amé ballon bi wala nga xamné amna option yu bari ngir jouer ci côté yi ala ki taxaw fi ki taxaw mu war ko mu wara pass ballon bi ngir jouer waye nak mo dal di tan dal di pass ki nga xamné moy Eric Garcia mi nga xamné ne mo ngi ci pression voilà loolu nag daal di koy yóbbee faute bi nga xam daal di koy def ba ñu daal koy jox loolu di carton rouge voilà loolu mooy li nga xam ne mooy faute bi nga xam ne moo indi carton rouge bi nga xam ne voilà ñi di waa Barça am nañu ko waaye ci kaw loolu it ñoom ñu ngi doon jéngu ndax match bi ñi di waa AS Monaco ñoom sax ñoo njëkk a dugal Barça daal di ñëw égaliser ak Lius moo dugal 16e minute Lamine Yamal égaliser ci 28e minute waaye itam moo dal di ñëw dugal bit bi leen jox ndam ñi waa AS Monaco muy xale bu ama am xarañte voilà kon mu mel ni matchu bi gone sax dañ ci ràññeeku de ndax gis nañu ne ñetti ñi dugal bal yëpp bu ñuy xool ay xale lañu voilà bokk na ci ak Lius bi nga xam ne moo dugal bit bi njëkk ci match boobu 2002 la kooku bu ñu xool xam ngeen ñaar fukki at ak benn jàpp ñaar fukki at ak ñaar ci lay toll Lamine Yamal bi nga xam ne moo dugal ñaar lu bit bi moom bu ñu bàyyi xel moom it nekkagul mag voilà sax 18 ans keneen ki xam ne moo dugal beneen bi ci mujj moom itam amagul 18 ans voilà muy ki ne moom la ñuy wax Ile Nekina kooku ci atum 2006 la daal di judd voilà loolu nekk lu ama am solo Lamine Yamal boobu nga xam ne daal dinay dugal tey jile bit boobu mu daal di dugal ci wàllum Ligue des Champions moo nekk premier but bu ma dugal ci Ligue des Champions voilà Lamine Yamal tey ji la dugal bitam bu njëkk ci wàllum Ligue des Champions nekk ñaareelu xale voilà ñaareel ki gën a doon xale ku dugal ab bit ci li nga xam ne mooy Ligue des Champions ndax ki ko gën a doon xale mooy Ansu bi nga xam ne moom ba muy dugal bitam bi njëkk ci Ligue des Champions 17 amoon bu tegal benn weer ak juróom-ñeenti bés voilà Lamine Yamal nag bu ñuy bàyyi xel am na lu toll ci 17 ans ñaari weer ak juróom-benn bés kon moom mel na ni voilà Ansu Fati ko gënoon doon xale Lamine Yamal moo ci topp mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy ki nga xam ne moo dal di dox ndam ñi di waa AS Monaco tey jilee voilà muy kooku ñuy wax George Ila Nikkena moom 17 ans la am ak 3 mois 27 jours kon moo tax match tey bi xale ràññeeku nañ ci lool ci li nga xam ne mooy victoire boobu nga xam ne AS Monaco am nañu ko moom Ilé Nketiah boobu kon jamono bi bit bi nga xam ne dal na koy dugal dal di jox ndam AS Monaco mooy ñetteelu bi nga xam ne moo gën a doon ku dugal ci Ligue des Champions boobu la nag kii di Lamine Camara joué na ca titulaire la woon waaye nag dañ ko mujjee génne ndax xam ngeen amoon na li nga xam ne mooy carton jaune voilà moo tax yegguloon match bi dañ ko mujjee génne ci jogante googule waaye ci kaw loolu it mu ngi doon def match bu rëy rëy coup de pied yi moo ko doon teg voilà di ko dóor di ko jaarale ci yoon malheureusement dafa mujj woon am carton jaune loolu bokkoon ci lii gën a tax ñu gën koo teel a génne moom kooku nga xam mooy Lamine Camara waaye équipe am mu jéem am ndam ci jogante googu ci njëlbéenu joganteem ci wàllum Ligue des Champions bi. match boobu ba mu jeexee nag ki nga xam ne moom la ñu wax dégg nga maam Hansi Flick bi tàggat équipe boobu di FC Barcelone moom nag daal dinay xam ne kat match tey bi nga xam ne am nañu ko. amul ci lenn lu ko naqari lu dul résultat bi ndax jàpp na ne match la ñuy daal di def te nag kontaan lool ci li nga ne mooy équipe bi yor jàpp na ne groupe bi mu yor daal groupe bu baax la te ay xale yu aay nag ñoo ci nekk voilà gone yu mën a football nee na ñoo ngi ci li xew nag mooy défaite bi nga xam ne am nañu ko foog ñu daal di koy accepter voilà su ko defee ñu war a mën a jàll ci leneen foog ñu accepter défaite bi ndax nag am nañ lu toll ci ñaari match ci seen kanam yoo xam ne mën nañu dellusiwaat mbir ci yoon voilà set match dese na leen ci li nga xam ne mooy phase bi nga xamante ne mooy phase bu njëkk bi moo tax loolu amul ci benn jaaxle accepter na défaite bi voilà te mu ngi wax ne am nañu juróom-ñaari match yu nekk seen kanam ngir war a mën a tontings waxna itam ne ki nga xamne mom lañ wax Casado blessé wul mal na ni ap nok bu ndaw rek la am maanaam gaañu gaañu bu tuti dal grawul lolou la dal di xamle mom koku di Hansi Flick bii nag mooy njëlbéen defet boo xam ne am na ko voilà ci histoire moom ki nga xam ne mooy Hansi Flick mosul am li nga xamante ne mooy defet ci wàllum Ligue des Champions ci phase de poule voilà maanaam phase de poule match yu njëkk yi mosul ci ñàkk li nga xamante ne mooy ab jongante tey jii la koy soog a dal waaye itam beneen mbir bi mooy tey jii lay soog a ñàkk ab match ak équipe bi di FC Barcelone ndax bi ñu tàmbalee saison bi ba léegi match yi mu joué yëpp da koo tey jii la am defetam bu njëkk moom kooku di Hansi Flick ki nga xam ne nag mooy Kevin De Bruyne bi nga xamante ni moom dafa amoon blessure ci match bi nga xam ne Man City ko wala ni ki démb moom nag nee nañu blessure boobu nga xam ne am na ko dana waral ba match bi nga xam ne ñoom war nañu ko am seen diggante ak Arsenal du ci dal di bokk loolu la ñu kayiti xibaar daal di xamle mu nekk xibaar boo xam ne neexul pour ñii di waa Manchester City jamono bi nga xam ne kat Arsenal taxawaay bu am solo la am ngir championnat ren bi ne gis nañu ko fan yi mu dal di drop point Man City am waaye yéene wu dab ko te kii di De Bruyne nag élément bu ama am solo la blessure boobu mu am daal Deli Miro ne na mayul ko mukk mu bokk ci joŋante yi xamuñ nag ñaata temps la ko jël ndax dafay dellu si après match boobu wala dafay toog ay bés wala ay semaine loolu yëpp amaan na dinañ ci dellusiwaat buñ ci amee yeneen xibaar moo ngi doon gars yi loolu fi gënoon fees way topp Sen Sport 221